très heureux de vous retrouver pour une nouvelle euh, émission mbokk yi leen di nuyu bu baax baax di leen wax ngeen daal ak euh, jàmm ci seen émission lu xew tey lu xew tey nekk émission bu nga xamante ni liñ ci waxtaanee di euh, actualité tey jii nag nekk mercredi 22 mai 2024 sur ce plateau du ma ci wét dama ci ànd ak sama jigéen Mantoulaye Mantoulaye maa ngi lay nuyu bu baax a baax. waa régie Seyna mhm. Omar ñu ngi lay séntu di nuyu ñi nga xamante ne mooy kilifa diine yi kilifa aada yal na yàlla ñoo di fan yi wéral cër yi exactement di nuyu euh, way jur yi yàlla yàgg seen taxawaay Mhm. ñot di seen i fan wér a seen i cër di ñaanal ñi si prison yi suñu borom delloo leen seen i njaboot di ñaanal ñi nga xamante ne danoo tawat suñu borom roof leen siiru wér mhm. et noonu di ñaanal waa diaspora euh, tawféex ak taysiir ju bari et di ko ñaanal ñëpp jàmm ju bari ba alors di ñaanal ñëpp jàmmoo rawatina ñu nga xamante ne à chaque fois ñoom ñu ñuy suivre en direct ci seen émission euh, li xew tey ñoom aussi également kenn kenn ñu des parce que euh, bu fekkee liir neexee nday jaatee ci loxo yi ñoom tamit également jaajëfal bu baax a baax a baax lépp ñoom la. a d'un moment à l'autre sëñ euh, beneen naataango di Seydina Omar moom tamit dina ñëw rejoindre nous sur ce euh, plateau alors Mantoulaye je pense que. actualité bi ba léegi euh, pënd bi wëreegul ci li nga xamante ni moo jëm ci wàllum arrestation bu kii nii di Bah Diakhaté et Cheikh Tidiane euh, Ndao mu nekk quand lu nga xamante ni euh, depuis ziar actualité bi je pense que ci la ci la ci la ci la accentue bu baax a baax ba tey jii am na quotidien yu bëri yu nga xamante ni revenir nañ ci comme témoin témoin nee na le feu rallume entre l'APR et PASTEF Bah Diakhaté sera présenté en même temps que imam euh, Cheikh Tidiane Ndaw devant le procureur ce mercredi c'est-à-dire Cheikh Tidiane euh, Ndaw ak euh, Bah ñoom tey jii nañ leen di présenter donc le procureur de la République di Abdou Aziz Diop ba léegi aussi également les échos les échos tamit ñëw ci l'affaire Bah Diakhaté mais l'affaire Bah Diakhaté s'emballe c'est-à-dire pneu bi wareegul ba léegi ci l'affaire Bah ba léegi mu wax ko ci les échos naan le téléphone de Bah Diakhaté téléphone Bah Diakhaté dañ kaa mujjee fouillé euh, am na yeneen arrestation tamit yu nga xamante ni prévoir nañ ko pour pour def ko ci affaire Bah Diakhaté ba ba ba léegi démb rek ñu ngi dégg euh, kii nii di euh, Babacar Touré di expliquer que ne ñu ngi xaare ni yeneen arrestation yu nga xamante ni dañ ko dañ ko amal la Imam Ndaw localisé chez son épouse via traçage traçage de son téléphone portable ki nii di imam Ndaw aussi également moom dañ kaa mujjee euh, localiser euh, ñu ko jàppee moom tamit si benn euh, voilà benn épousam kër këram boobu noonu si beneen këram bi nee foofu la nekkoon ba léegi aussi également ci affaire de Bah Diakhaté L'Obs aussi également ñëw na ci nee la vérité Bah Diakhaté fuyé de fond en comble moom loolu la loolu la titre tey quotidien bi nga xamante ni ñu ko tuddee euh, l'Observateur euh, donc va des zones de conflit euh, armées à l'activiste politique en passant par par les mamans donc je pense que quotidien yi quand ñëw nañ ci exactement l'affaire Badiakité ak Cheikh donc Tidiane Ndao loo ci gis mooy que ne quand ba léegi pënd bi wéreegul ci ci li nga xamante ni moo jëm ci wàllum donc ces arrestations là Mantoulaye waaw mais Pape bu fekkante ne arrestation yi mu ngi continuer euh, xëj na dafa fekk xas sa beex wax ju ñaaw jeex kàddu yu ñaaw yi dafa dakkagul. d'accord euh, donc euh, dafa war a dakk bu dul loolu tamit keneen ku ko fa waxaat rek Pape dañ lay dem arrêté ji. Mhm. mais lu ñu mooy que ne d'après Babacar am na sa benn quotidien tey jii bu ko relayé mooy que ne ñu ngi xaarandi yeneen arrestation yi nga xamante ni c'est dans l'affaire de Bah Diakhaté c'est-à-dire képp ku nga xamante ni yaa nga noo amoon contact avec Bah Diakhaté xamal que ne yaa ngi en danger. amoon contact ou bien. oui. comment ça. c'est-à-dire sur sur bu nga xamante ni moom mu ko doon ko wax ci ci Ousmane Sonko est-ce que nekk ñu du ko jox ay ay ay idées est-ce que nekk ñu di ko jox ay ay sources pour pour des sources yu nga xamante ni na moom ci lay basé wu ci lay tënku pour wax pour wax exactement lu ñu mel Ousmane Sonko. bon contact man je comprendre ma exactement. ah qu'est-ce que dire au fait. Okay. mais en tout cas. Mhm. Euh, moom li mu def nii publiquement. Ah. Euh, keneen ku ko fi def tamit série d'arrestation lay doon. loolu daal mën naa ko mais contact yi je sais pas yan relation la. ndax en tout cas même bu fekkee contact am na. ñeneen ñi ah. waxuñu moom moo publier. Mm-hmm. alors euh, Seydina Omar je pense que yaa ngi rejoindre sur ce plateau man lay dinaa ñëwaat ci yow Seydina Omar maa ngi lay nuyu bu baax a baax. alors Pape maa ngi lay fay di nuyu Mantoulaye di nuyu aussi mbokku internetu M4 di jéggalu bu baax a baax ci retard bi voilà. Euh, alors justement je pense que yaa ngi suivre euh, débat bi fu tolloon mooy que ne tey jii nii. Mm-hmm. di mercredi ci leen war a présenter kii nii di Bah Diakhaté ak Cheikh Tidiane Ndao procureur de la République ban lecture nga am ci alors c'est normal ñu dem jàkkaarloo ak juge bi wax ak moom lu leer parce que tamit arrestation bi euh, quoi qu'on puisse dire voilà kàddu yi dafa xaw a ñaaw ba pare dafa rëy. te mhm. itam bon dañu nekk ci régime boo xam si ni bu bees la rupture la ñu woote lii dafa war a bokk ci rupture bi c'est normal ñu euh, dem jàkkaarloo ak juge bi ngir leeral kàddu yi nga xam ne moom la ñu yëkkate parce que dañuy dégg ci biir wax ji ñu ne dañoo am ay preuves wala genre yu demee noonu donc wax exactement li nga xam ne si ni yow yaa ko wax nga assumer ba pare nga génnee ay preuve yu leer bu boobaa dinañu xam fan lañ lay féete parce que yoon moom moo mën a jël dogal ci moom la mbir nekkul Umar moo mën a jël dogal wala ay partisans yu bokk ak Bah wala koo xam da ko contre non non justice moom mooy jël liggéeyam def ci li ci war donc seen normal ñu dem présenté wu itam képp koo xam ne yëkkati nga ci ay kàddu nga teg ko fu leer parce que tamit bu ko fi tegul lu leer rek ñu xam ne danga nga toogoon di wax pour wax pour yàq deru nit ki bu boobaa man je trouve bien que ñu jël ay sanctions yu buur ci yow bu ko defee li ma doon wax rek keroog kenn koo xam ne si ni euh, am nga benn xel ñaar bu ndaw boo xam si ni war nga bëgg di ñëw jàkkaarloo ak nit ki di euh, bëgg wax voilà yu mel noonu ñu daal di dal sa kaw mais tamit lépp nañ ko teg si yoon parce que comme dañ doon xeex justice bi te mhm. justice yoon moment euh, ko fii récemment ci wàllum justice bi justice boo xam si ni à deux vitesses ñi naan euh, yoo xam si ni justice dañ leen di digal ñuy def lii dañ leen di def ñuy def nii donc c'est le moment ñu xam exactement est-ce que justice boobu noonu ñuy xam ni euh, moom mooy sunu justice te itam moom la ñu yaakaar dina doxalee ni nga xam ne si ne mooy di tëddee njaaxaanaay. alors justement Mantoulaye le fait que ñu ñu donc pour l'instant de de personnes attaques yi bëri woon na euh, je pense que injures yi bëri woon na envers les autorités léegi la fait que ñu attaque ñu ñu jàpp ces deux personnes là à euh, un moment donné souffle na quand même la récréation. Euh, deux personnes mooy Bah Diakhaté oui Bah Diakhaté ak Cheikh Tidiane Ndao le fait ñu jàpp leen je pense que ñeneen ñu doon attaqué les institutions ñu doon attaqué Ousmane Sonko di attaqué kii nii di Bassirou Diomaye Faye à un moment donné dañ arrêté quand même. waaw mais mais attaqué institution tamit déggee woon ni kàddu yu mel nii. Mhm. peut kàddu bi moo diis moo waral lii. Euh, parce que tamit euh, tuuma bu rëy nii lu mel nii nga teg ko ab kilifa euh, même bu dul ab kilifa sax Pape yow mii ko la ko tegoon pënd ba wure bi nga wax sànq. Mhm. dina wure lool sax. Mhm. donc loolu moo yóbbu rek si arrestation yi imam bi nag moom vraiment man bett na ma. parce que ay kàddu imam dañ ko dañ si soxla mu gën a rafet. imam sax dafa daan gis ab tension di am si dëkk. d'accord mu daal di méngale li nga xamante ne mooy diine ak jamono. Mhm. Euh, daal di teg euh, parce que boo xoolee si alxuraan boobu nga xamante ne ñoom euh, moom la ñu jàng lépp lépp lépp dafa nekk solution yëpp dafa nekk daan nañu gis yu mel ni xew sax ñu daal di génn ñoom si seen i si seen i nekk. Mhm. daal di am kàddu yu yoo xamante ne dinañ ko teg si nopp askan bi bu ko defee yëf yi daal di dal mais imaam nag bu fekkante ne nag moom nag léegi nag waaraate wala leneen ak leneen jublootu si lu dul di di di xas sa ko def yëf ah imaam mu ngi bujj nag wàcc àndam. alors euh, Pape tuuti rek dama am lu may euh, complété ci Mantoulaye li mu wax. parce que mhm. léegi dañu gis imam yoo xam dañuy jël position. te loolu ñun faral luñ ko di gis suñu réew mm. ndax dañ doon faral di gis imaam genre politique parce que politique ni muy doxee daanaka ñoom daan nañu leen di faral di gis ñu ciy dugg alors bu ñu demee ba cinq ans sept yi ñuy gis ay imam yoo xam dañuy jël position parce que récemment maa ngi gisaat beneen imam mu ngi toog ci plateau jàpp am men dooyu lu mu ko waxul amul parce que lan dafay tudd Sonko kii tamit ñëw génnee côté APR ñëw tamit jàpp Ousmane Sonko lu mu ko waxul amul c'est-à-dire ñun dañu xamul yooyu xamuñ yooyu imam si lañ ko doon xam ñaari diggante yu féewaloo mu ñëw wax ci jàmm ak salaam dox ci rattaxal dañoo war a tëddee njaaxaanaay merci beaucoup certes nag ba peut-être xam nga politique dafa xaw a doy waar mhm. parce que dafa am noo xam ne si nii voilà suñu culture ñun suñu réalité am na ñoo xam si ni duñ leen fa bëgg di gis mhm. ndax dafa am benn dayoo boo xam si ni dañ fa am ba nga xam si ni tey bu leen gisee si yenn genre ba pas mais dafa am fu ñu leen di féetale mhm. donc moo tax te Euh, genre yu mel noonu waruñu di dugg ci politique di ci xuus bañ leen ci ràññee yene te itam ces yi li ñu gis dafa xaw a doy waar ndax dañuy gis ay imaam yoo xam carrément dañuy jël position di wax lu leen neex te loolu voilà dafa am nuñ koy xoolee quoi. alors euh, justement pour revenir un peu sur le hmm? sujet mooy que lu ñu nemmeekoon euh, sur la fin de règne de de Macky Sall arrestation yi ko wax ñu jàppale la daa mel ni quand même loolu lañ bëgg a nemmeeku ci début euh, magistère bu Bassirou Diomaye Diomaye Faye je pense que bu nekkee que ni lu ñu moom lañ leen a constaté euh, je pense que fu ñu jëm donc dina xaw a lëndëm lëndëm trop euh, ba démb rek maa ngi lire quelque part kii nii di Alioune di expliquer que ne il ne faut pas que ce régime là tombe euh, si piège yi donc ces gens là. xam nga démb maa ngi koy wax ma ni régime bi bu ñu amul sens dinañ leen dinañ leen conduire en erreur. ci genre yu mel nii parce que nag bu ñu fàttali ko Azoura Fall. moom moo fi njëkk a saaga Bassirou Diomaye Faye. oui son excellence. oui nañ ko wax. oui te pourtant boobu ba léegi kenn déggaatu ci dara. Mhm. et pourtant peut-être d'une part mën nañu wax il est de Pastef. oui parce que moom moo def live en direct. di saaga non Mansoura kenn du kenn du nier que ne. de Pastef oui. voilà mais après. xam nga kenn déggul dara. kenn inquiété ko. merci beaucoup. Mhm. man benn part dama jàpp ni sax. ba ba jàkkite mi li mu def nii c'est juste benn benn stratégie bu ñu teg pour jéem a conduire wala jéem a jaxase wala yax euh, jaxase maanaam salteel liggéey bi. Mhm. donc ñoom tamit. ñooy war a utiliser seen xel d'une part bañ a topp lii parce que xam nga sénégalais lan la gën a bañ. oui kuy néewal doole moroom ma. Mhm. loolu la gën a bañ. munoon na la bëgg à cent pour cent mais bés bu demee ba gis yenn yu mel nii. te bu ñu bu ñu jëlee exemple ci régime bi nga xam ne si moo fi jógee. mais euh, euh, dernier moment yi. arrestation yu bëri lañu fi des arrestations tous azimuts yoo xam ne si ni voilà kenn mënul comprendre arrestation sur arrestation oui te loolu dafa dem ba jur benn haine boo xam si ni tax na population bi am ko ci régime bi exactement donc ñoom bu ñu leen bu bu bu ñu bu ñu bu ñu dugg foofu maanaam bu ñu jéem a teg bu ñu jéem leen jaxase wala dugal leen ci lenn loo xam si ni voilà dañuy si dugg ba ëpp ba bu boobaa ñoom li ñu doon xeex dañ koy faral def dañ koy def ndax kat am na ñoo xam si commencé na ndax est-ce que xam nga ni euh, plante nañu Azoura Fall ci lu mel noonu parce que dañu jàpp ne moom moo njëkk a offensé le chef de l' état. te pourtant kenn jëlu ko fenn parce que article quatre vingt dafa wax carrément ku offensé chef de l' état ñu jëw ci yow. ay mesures pourtant euh, ba ba Diakité si boppam moom offensé wul chef de l' état kan la offensé premier ministre. mais y' a un deux cent cinquante quatre code pénal. article boobu aussi également képp ku nga xamante ni da nga offensé. Mhm. un membre mhm. d' un membre de l'État ak koo xam seen. le président de la République ça c'est une évidence le président de mais moom tamit autorité la institution la. article bi tamit daf ko protéger. waaw d'accord moo tax ma ni. mais moom article aussi daf ko moo tax ma ni ah fi mu gënoon yelloo. Mhm. kon mooy si Azoura Fall kenn deful dara. Mhm. c'est-à-dire dama bëgg ñu tëddee jaaxaanaay bañ a topp parce que kaay ma xamal la leen ki nga xam ne si bëggul gis sa dara lu baax. côté yépp day xool fi nga xam ne si ni foofu noonu fa ngay leen mu fay jéem a salteel li Youssou Ndour doon wax euh, kii la xaw ma lan day xool fi nga gën a kii mu jaare fa pour yàqal mhm. sa cest à côté boobu nag la ñuy jéem a kiiwee parce que tey su fekkee ne euh, Azura daa ñëw saaga euh, son excellence kenn def ko dara kii ñëw wax ñu def ko dara bu boobaa daan naan ah yàppa kon justice bi ñu doon xeex bay wax que ni kii ni demeewul noonu. mais tamit kumba am nday ak kumba amul nday mu ngi ci commencé di am. de l'autre côté vous avez entendu je, je pense les déclarations de de Ousmane Tounkara ce pas. non Ousmane Tounkara moom dama ne bu nekkoon Sénégal. xëy na nag lu mu nekkul Sénégal laa moo tax ñuy comprendre que ni mais Ousmane Tounkara bu nekkoon Sénégal non buñ ko jëliwulee buñ ko jëliwulee keneen kuñ fi jàppati dañ laa jàpp pour lu leen. Ah, mais ne se ne se c'est ça ne serait-ce que ñu lancer ko mandat d'arrêt xam nga lan mooy problème bi ñaata yoon lañ fi def mandat d'arrêt mais pour ñu jëli leen sax c'est un problème. mais ne serait-ce que ça mais ne serait-ce que ça quand même. ne serait-ce que ça il a avoué publiquement. il a non il a avoué publiquement. loolu moom nañ ko accepté Maïmouna Bousso aussi mu ngi commencé di def yoo xam si ni je comprends pas alors non je ko. yow yow non non Maïmouna Bousso moom. moom elle a été claire. elle a c'est-à-dire non non xam nga Pape. dafa am loo xam si ni kenn mënu ko comprendre. oui. yow bi nga nekkee si opposition danga doon dem ci plateau yi di wax. oui kon tey moom man xaaroon naa ko feneen fudul xëy na bu jëmee si saaga yi je suis parfaitement d' accord mais képp koo xam ne si yaa ngi ñëw ci plateau yi wala yaa ngi nekk di ŋàññi wala ngay xase dañu war a du du ñu bàyyi du ñu bàyyi justice di fajal seen bopp ñun patriotes yi ñooy préparé fekk ci plateau bi bu génnee ñu defaral ko ba nga xam si ne bu ëllëgee dootu ko def mais la. est-ce que loolu problème la. Mhm. war non mais moom da doon toog ci plateau yi di wax. Mhm. mais est que kenn mës na ko dogale. non non kenn déggu ko mais pourquoi tamit du nangu comprendre que ni euh, voilà ñi bëgg a wax dinañ wax mais moom moo war a fajal boppa ba war a tax mu ne non nañu nañu na bu ñu xaar kenn. bu justice daful liggéeyam moom dana bu justice daful liggéeyam. non no ils vont ñoom ils vont. ils vont réagir xaar loolu ñun patriotes yi ñoo koy fajal suñu bopp pourquoi. Uh-huh. mu ne. ku fi nekk di nekk ci plateau yi di saagaat di xaseeg di def yenn yi. mel ni fekk fekk la fa nga nekk. <laughs> mais loolu c'est pas du tout normal. saaga moom man cautionné wu ma kenn ku koy def. képp ku ko def man damay damay damay damay lancer benn message képp ku dañu war a jël gouvernement bi fi nekk dañu jël ay matuwaay yu doy sëkk yoo xam si ku fi ñëw di saaga nit ki wala nga koy sosal di wax yenn yu garaaw yi. d'accord xëcc la teg la si yoon bu ko defee yu mel noonu dootu fi am mais nag nañu yemale yépp teg ko ci liggéey. ndax kat foofu lañ leen di gën a xaare comme xeex nañu lii ba mu jóge fi ñoom tamit bu ñu defee nii rek après voilà dañ koy gisee neneen te kenn yéenewu ko kenn ah, voilà comme yow si euh, sa fin wax ji wax nga lépp uh-huh. euh, donc li Alioune Tine wax euh, yéen a ngi méngale li nga xamante ne moo fi amoon si yi passé mm-hmm.